jërë ngeen jëf internet Sunugal 24 euh, ñu ngi leen di nuyu comme niñ leen ko waxee woon rek euh, ni leen mbir yi dañ leen koy toppal ba tey nag ñu ngi fi euh, ci Aynoumane koñu ki nga xam ni moom moo di Assane Diouf li fi xew nag ñoo ko gisandoo ñoom nee nañu rek ne dañoo yeew gis rek ñu daal di dajji paranteeru néeg bi nga xam ni Assane fa la daan fanaan maanaam néegam daal di fay gàddu ay bagage rek lu mel ni ñaari saak yi nga xam ni moom la daan faral di yor daal di koy yóbbu nañu xamuñu ku ko daal di def xamuñu uh, ku def mbir mi waaye nag uh, ñoom it uh, dinañ ko topp rek ba xam kan la kon internet yi mu ngi noonu ñoo ko gisandoo. sëñ bi ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak internet yi. maa ngi leen di fay ñu ngi lan nga ci Assane Diouf. man maa topp ci taawam. ndax mën nga ñu dikkalaat rek ci mbir yi ni mu demee woon. waaw dañoo tëdd yeew fekk sama mag di dugg di ko génneel yére pour yóbbul ko ko. fekk ñu jaxase néeg bi ci biir après ci lañ xool gis nañ bagage yi jaxasoo nañ am na lu ñu yóbbu ñu génn fekk ñu daaji fenêtre bi ñu duggee xool naka tey am na ñu fi ñëw daaji nañ fenêtre bi yóbbu nañ ay quelques bagages am. tey xam naa guddi gi la parce que dañ yeew sama mag ba mu yeewoo daa amee ay yére yu mu ko bëggoon yóbbul ci la dugg gis ne du am na ñu nekkoon ci néeg bi après ñu ñu xool. jàpp ne daa ko fi dugg sax ak caabi ci laa génn xool fii gis ñu dajji fenêtre bi ma woo ko ne ko dañ ko dajj kon ñoom ci palanteer bi la ñu jaar pour mën a jël li ñu doon jël. waaw ci fenêtre bi lañ jaar parce que boo duggee ci biir di nga gis ne tele bi sax wekki nañ ko mais xam naa dafa xajul fii moo tax ñu tegaat ko bagage yu dañ ko génne ci kii lañ ko juub ci kaw lal bi te démb ci guddi dañoo defar fii ba pare. yan bagage ngeen ngeen ngeen remarqué ni manqué na fi. non parce que moom dafa amoon ay bagages am te mu dañ ko rangé woon ci ordre quoi boo ñëwee rek boo xoolee rek di nga xam ne carrément am na lu ñu jël parce que am na benn saagam boo xam ne tout le temps moom la daan yor mais saag boobu tamit bañ duggee fekk ñu ko fi ak ak quelques yëreem parce que boo xoolee yëre yi sax yóbbaale nañ ko. Mm-hmm. ñan ngeen jàpp ne ñoo def mbir mi. non instant bi jàppaguñ kenn mais pour ku wax rek ne ñi fi ñëwoon ñoom buñ ay nit amee fitu ñoo taxaw fii def dara rek ñoom ñoo leen may fit bi parce que ñoom bu ñu ñëwee liñ njëkk a xalaat mooy daaji faneet ci nit koo xam ne rayul nit deful dara heure bu koo xam ne dawut heure boo ko jël see mu topp la waaw bëgguñu woon wax sax mais ah, lii mënul ñàkk buñ bu am bu amee bu amee ñoo fit ñëw ba taxaw fii di def lii rek ñoom ñoo leen may fit bi parce que ba ñu ñëwee benn dañoo tëb suñ kër daagi néegu jàmbur wanuñu leen loo xam ne ñun war nañoo mën a xam ne lii mooy loolu teg teewuñu ko dara tamit. kon ñoom biñ koy jël si dañoo ñëw daj fii jaay ko doole yóbbu ko. waaw mën nañ leen tamit loolu la dañoo jaay doole ñu ngi wax ak ñoom mais xaw nañ cee jàppanteeg sax ay nit. ba tey jii ndax mën nga ñu wax ñoom ci lan lañ sukkandiku ni moom lañ ko toppee. mënuñu la wax leen parce que sama bàjjen moo fa nekk fan yii yëpp mais waxuñu ñu ne leen lañ ko téye. mënuñu laa wax lii lañ ko téye franchement. Sunugal 24 point net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net.